mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu arbitre bi sifflé xale yaa ngi ci digg géew bi ñu ngay lewaatoo Faga 2 ak Tapha Mbeur Tapha Mbeur mbokk yi moo ngeen moo ngeen mulu jaune li Faga moom la ñu jàkkaar lool Faga daaw na jël dóor na ak Tapha Mbeur Faga 2 ngi dox ci kaw Tapha Mbeur Tapha Mbeur ak Tapha Mbeur jël na ko Tapha Mbeur da muy def daan na ko daanoogul eh! eh, eh, eh abit bi woote waat na jël amagul mais xale yi bëre noonu dafa am ba naanaan la dafa am ba naanaan la ziar naa la faga de dafa am bër kan mooy tuus bi Feugueu 2 moo ñu wan ginnaaw Feugueu 2 wa ngay dóor Feugueu 2 Tapha Mbeur Feugueu 2 wa ngay dóor dàq na ko plaqué mu bañ Faga 2 Tapha Mbeur xale yaa bëre Faga 2 Tapha Mbeur Faga 2 Tapha Mbeur Tapha Mbeur ngay dugg ay ñëw ci kanam Faga may toppandoo. yow da nga may toppandoo quoi. Faga 2 Tapha Mbeur. war na ko bot ko daanu nga da daanu. da ngay daa bari. Tapha Mbeur la daa bari. sottee ko nii. nga yëpp ñii la bilaay walaay lépp ñii la man amuñu dul ñii jëlal ñi amuñu dul ñii mais li naka nga koy amee ba noppi di gëj a bëri waaw parce que mbëri tapel rek mbëri ñoo tapel mbëri bëggul lu mel bëgg kuy daan kuy daanoo daanu kuy daanu lañ gën a sawar kuy daanu lañ sawar sawar kuy daan bilaay walaay taala fayda ak jom gën a maa bokk ci làmb gis adversaire bi nga bëggal xaw na la su tuut yàgg naa bëri yàgg nga saan samay combat ma ñu may bëri ñëpp ma ëpp ñu may bëri a joxe lu mu laaj fulla ak fayda ak jom ak ndam rek la laaj fulla ak fayda ak jom ak ndam la laaj xeex nag lu mu laaj rek suy paree ma li may ñaan mooy lim daa bëree na ko bëree rek lim daa bëree moom na ko ñëw bëree rek bu ko teggiwul combat bi duma indil incha allah lu laay ñaan yàlla mooy arbitre bi dana dox daa seen ku góor daw song te combat bi dama daa bëree rek moom moom bu bàyyiwul 10 secondes 5 secondes bu ñëwul ma ñu fekk 5 secondes. 5 secondes yu gaaw na de. su ñëwul ma fekk 5 secondes mu dis ma ko fa incha allah yàlla na jàmm moom yàgg xam nga. xam li làmb loo ko mën xoolee xale yi lañ sañ ñëw rek taar làmb. xoolal ma xaj a kaw xoolal ko ka Jumel waaw waaw kay waaw gis ngeen xam ngeen ni kii ngi wane boppam man lii laa bëgg làmb daal lii la baaxoo sañ sa rafet ñëw toog supporter sa mu daan wala mu daanu bu mag seen nii lee nga jóg dem ñibbi. sa combat bi passé li la xañ mooy da ngaa sonk forcé ñu yokk la suñu xol la loolu lay invité moo tax kii yàlla moo nu boole ñu bokk Serigne Babacar ñoo boole ñu bokk def barke Serigne Babacar yow la fekk si teel nga bëre wàcci bàyyi góos muy dem ñii ñëpp samay père lan ñii ñëpp del bàyyi sa góos muy dem fu buntu amee ran da doit bi dal léegi li nga bëgg di gam ci kàttu yàlla yàlla na leen ma ne lan nga bëgg combat bi passé <laughs> damaa jum <laughs> damaa ñëw depuis xale quoi jàmm nee na nga daan bëree boo ko bàyyiwul boo ñëwee cinq secondes lamb Thiandoum Thiandoum maa gën a pare ci kanam tuuti ba ma koy won man maa rétifié sama bopp léegi léegi incha allah. yaa rétifié maa si am xeex. lépp ngay lépp lay am. ci xeex lay jeexee sax bu ko soo moytu. Ada Bass ak Sa Thiès Ada Bass Sa Thiès Sa Thiès nañu jàkkaarloo wala boog Ada Bass Ada Bass dox na ci kawam Sa Thiès jël na ko Ada Bass daanu nga daanu nga Ada Bass daanu nga bàyyi jàmbur Ada Bass daanu nga bilaay oh Ada Bass daanu nga Sa Thiès daan na la ndànk Moustapha nuyu naa. champion maa ngi lay. ci waaye sant yàlla. naka nga ñëwee. waaw tey ñëw fas yéene ñaan suñu borom may ma ndam. incha allah rabi ma ànd ak samay mbokk ak samay supporters dellu. préparé yeneen combat incha allah. dama la nga xaw a diis tey. kan man. man nii laa mës yoo ko poids. non non. mais Ahmed ma gis. bari na doole trop loolu mooy tax mu neex. waaw bu bëriwul doole day yomb ko bu dee gis dafa mel dafa décidé de xool. waaw waaw xool Ahmed. Ahmed dem jarul ma koy xool. lu tax dinañ gisee. dinañ gisee yaa waaw. yaa am Diop Anil Ndiaye. waaw bu soobee yàlla. père nuyu ngi lay fay. loolu. sant yàlla rek. tey na ngeen andee ande Ameth Deme. déggu ma. tey naka ngeen andee Ameth Deme. waaw comme ni nga mbëri rek. ak doomu aadama yi. def na li ko war lépp entraîné na. contact na ñaanlu na. li ñu koy mooy mu toog ci tànkam di réeku rek fas yéene am ndam. mais est-ce que diisul trop. Ameth loolu diis na fii xam nga mbëri ci suuf la ñuy entraîné. mais mën na noo yor benn paane ci kaw mais duñ diis ci biir géewu. comme suuf si dafa diis moo tax gars di entraîné ci suuf su suuf si diis ko dara daal. mais tey naka la war a bëri Gabassing ndax Gabassing gën nañu koo gis nee naa ko doo perdre le pain Ameth Deme tey naka la war a bëri Gabassing da nga war xeex. wala dafa war a ñëw taxaw déglu Gabar Singh. non xam nga xam nañ Gabar ndax yaakaar naa Gabar Gabar làmbaam yëpp day défendre di di dugg ak génn ba daan la loolu lay war Ahmed Deme li ko digal mooy mu toog ci ay tànkam di réeku xeex moom benn benn ba Gabar juum mu daan ko. mais est-ce que bu defee noonu combat bi du yàgg. non du yàgg bu boobaa Gabar bu encaissé ay coups dina ñëw te Gabar yàgg-yàgg day ñëw. ndax ñun yaakaar gabaar xam nañ gabaar. bu ñëwee lu mu fay fekk. bu ñëwee lu mu fa fekk rek mu xam ne loolu la fa war a fekk waaw. kontaan <laughs> naka nga gis Ahmed Deme. waaw tey xel mu daal. waaw xel mu daal physiquement moralement euh, techniquement aussi. mais ngeen génnoon géejawaay ngeen duggoon géejawaay jëlee fa defet ngeen départ duggaat bi géejawaay. waaw méttiwul méttiwul parce que yàgg nañoo ngemb Ahmed parce que bi ma koy ngemb ak léegi man waaw ci 16 an laa ko dala ngemb ba jusqu'à présent. maay ki ko njëkk mës a coaché amul kayen ku ko mës a coaché xam ci moom lu bari. dugg Géejawaay yàgg naa dugg ci bërëb génn fa ak victoire duggaat fa génnaat fa ak victoire. Euh, gagné nañ ko par décision arbitre d'accord mais ci kaw règlement ñun li ñu gëm mooy que ne am na victoire parce que xam nañ ne booy bi def na quatre appuis leer nañu. Euh, moo tax bi ñuy ñëw amuñu charge bu diis charge bi diisul ci ñun jàppuñu sax que ne defet lañ am li ñu gëm sportivement mooy que ne ci li ñu suñu bët may mooy que ne daan na na booy bi mu bëre kon suñu diggante ak gabar méttiwul. ku ñu war a jox cër la nag parce que Gabar ku respecté nit la ku respecté lambam la aussi looloo tax lamba ji cër lañ koy joxe pour mën ko nax daan ko mag la mu xale war a nax loolu naan naa merci beaucoup. Allez Ahmed nuyu naa. naa la. ci loolu. sant yàlla bu baax naka nga ñëw. waaw alhamdulilah. ñëw naa pleine di ñaan yàlla rek mu mottalil ma ko. ma am ndam si kaw gabaar si. gis la nga ba nga duggoon géejuwaay. génnaat fa duggaat géejuwaay lan moo waral loolu. waaw xam naa li tax ma duggoon fa duggaat ko. tey bésu lu mu lu may leeral rek. te si kanam. mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ñoom combat bi dox ci diggante Boy Diop ak trompeur numéro 2 Boy Diop mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw trompeur la nu jàkkaar lool trompeur Boy Diop Boy Diop a ngay def wala boog trompeur ngay déplacé wu Boy Diop ak trompeur Boy Diop ak trompeur ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar congo amagul dóoranteegunu ñoo ngay déplacé wu rek trompeur Boy Diop trompeur ngay trompeur Boy Diop trompe Boy Diop trompe cokkaas na léegi daw na jëli Boy Diop dóor dóoraat baa du ko dóor wee eh! mbot na ko Boy Diop moo mbot Boy Diop Boy Diop Boy Diop da ngay daanu daanoogul Trompo war na ko ndomba daan oh Trompo daan na Boy Diop Trompo daan na Boy Diop Thank you. mbokk yi abi sifflé na ci kaw Dougar Dougar gi ne tekki taxaw di ko déglu Canal ak Dougar mbokk yi xool Dougar moo xaw gën a diis tuuti Canal ak Dougar Peul Dougar daa mel ni da koo bëgg a jàpp ak Dougar eh Canal doon na ko Dougar jàppante bi la bëggoon Canal Dougar Peul mbaa kaawoo du ci am ko mu daw doon ko mu daw Canal ak Dougar Canal Dougar Peul Canal dama dof Dougar nee na dama dof jàmbaar dawul daawu ci doole bëgg naa lii ci athlète boo jekkuwul da ngay daw génn ba dellu siwaat waaye mbokk yi Canal bu dellu see lu muy def

Peul Dougar Peul Dougar door na léegi canal canal daw génn dem na ci ardo dellu siwaat canal Dougar Peul Dougar moo ñu woon ginnaaw canal la nu jaakaar lool waaye Dougar bi mel dafa mel ni bi nga signal ba daa dem ñoo ngi damante baaraam kanaal yi nga koy xool dóor na ko kanaal la ngay dóor kanaal la ngay dóor fàq na dugaar dugaar kanaal Dugaar da koo bëgg a jàpp. bu dafa bëgg a jàpp Canal. takk na ko. <laughs> arbitre sifflé waat na combat bi ci dox dox ci diggante Canal ak Dougar Peulh Dugar moo ñu woon ginnaaw Kana la nu jàkkaar lool Kana léegi koy tàllal loxo ba Kana cokkaas na léegi waaye Dugar rek ne tekki rek eh daje nañu Kana daw na jël ko xeex nañu Kana ak Dugar pël Dugar daa mel ni jàppante bee waaye Canal du koo bëgg a déplacé xeex ak moom Canal du ga pël Canal léegi koy natt dóor na ko dóoraat na ko ña ngay xeex Canal du ga pël ña ngay xeex dóor dóor Euh, li lan la. canal boo loolu ngay def. jaaykat bee keroog euh, euh, vert la soloon tey orange yaa koy seen kii faw ñu wax ak moom gis nga woo. ak a mën a joxe numéro nag. Kanaar ak Douga Peul ñoo ngay xeex eh dóor dóoral ma dóor na ko da koy añ gabaar lu mu bëgg a def wala boog Kanaar Douga Peul eh déet bul dóor doomu jàmbur ji wa eh gabaar lu muy def nii fàq na ko jeex na doole yamul doole yamul Douga daan na Kanaar Dougar daan na Canal naa dama foto leen mbokk yi arbitre maa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi ci diggante Thiandoum 2 ak Ndiaga Diop Ndiaga Diop numéro 2 Thiandoum 2 kii Ndiaga Diop numéro numéro la tuddee ki tuddee boppam Alaaji Malick Thiandoum Thiandoum deux moo ñu wan ginnaaw Ndiaga Diop la nu lool arbit baa ngi leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ laaj na ay siisam laaj na Thiandoum deux laaj na Ndiaga Diop arbitre ba sifflé mbokk yi combat spécial baa ngi noonu ku ci nekk yaa ngi kàbba sa morom candu mooñ war ginaaw Ndiaga Diop la ñu jàkkaar booy xool kii di Ndiaga moo xaw am tuut moo ëpp taxawaay waaye candum nee na ma cinq secondes laa ko may Ndiaga Diop ne ma maay rectifier sama bopp ah seconde daa xew Ndiaga Diop dox na ci kawam jël na càndum daan na ko Ndiaga Diop Ndiaga Diop daan na càndum benn song la mu jeex Ndiaga Diop lay lay da koo jël plaqué ko mbëkk ko mu ak moom. Daga Diop daan na ko kaay kaay kaay. damay sant yàlla. barke sëñ Tuubaa sama place ma dul fii. mais maa ngi sant sama bu baax ndax mu koy sant xam naa ne li mu tëdd feebar moo tax mais wallaahi bu fekkoon am na wér billaay dépassé xam na ni kuy bëri si ma ji mën naa la jàngal bëri. barke alxuraan Serigne Touba Mbacke. xale. ma juum dafay waxaat di tuub nag waa Pikine yëpp parce que waa Pikine am na fu ñu ma teg am na fu ñu ma teg maa ngi leen di sant bu bilaahi am na lu may représenté Pikine. sam papa champion d'Afrique la lu mu liggéey liggéey na ko. Sénégal yëpp xam nañu man li ma war a liggéey man maa koy liggéey sam bopp man. personnel bilaay samay morom nañ ma leen jox xam nga tey jii lamb war na dépassé niveau bi tapé ñoo bëri si lamb ji mais parcelle Pikine la ba léegi Franc na ñëw. man li may wax. wallaahi jëf laa gën a mën amul benn mbër bu ma yeb. mën ngaa géegi sama nga seetaan samay lamb mbër song ma song parce que parce que keroog damaa ñëw def yëpp xale. te kiy bëre si di tax maal daax bëri wallaahi. mais yàlla baax daal. dëgg la ñu ngi jégalu ñëpp. waaw bu taxawee laa la wax ma def ko nii barki maam Seera Fall ma bu néew moo wax nag maa ngi tub di jégalu ñëpp waa def lépp parce yabuma waa Pikine. yabuma. waa yabuma leen waxu yabuma waa Pikine. te dañ maa respecté. baana baana waa Pikine dañ maa ne ma ab Eumeu Ama Baldé Sokh yow yaay quatrième yaay cinquième njëwuma ne leen man maay loolu mais ñoom ñoo ma ko teg kon dama sant yàlla waaw te làmb mooy suma métier di nuyu sama papa bu baax mooy yoon dama ni kuy bëree di takk ngemb amu amu ma xaritu mbër ma rakki waa Pikine laa bàyyi si làmb wallaahi sama cër si làmb fi ma jëm waa làmb ñoo koy ñoo nañ ma jox morom rek non fi ma jëm fi gars jëm rek fa jëm fi gars jëm rek fa jëm mais maa leen di presse maa ngi sant maa di am contentement ah bëgg naa trop di leen jégaluwaat bu baax waaw yàlla baax na

mbokk yi grand combat baa ngi noonu dox ci diggante Gabbar Singh ak Ahmed Deme mbokk yi Gabbar Singh a ngi noonu moo ñëwoon ginnaaw waa mais lamb yi lu tax tàkkul xanaa du ngeen ji wax lamb estade yi tàkkul ah du ngeen ji wax ah kon boog gaaw leen Ameth Dème Gabbar Singh Gabbar moo ñu woon ginnaaw teg pied gauche Ameth Dème teg pied gauche xeex bi dina xaw a compliqué tuuti eh Gabbar dagg na lewaatoo bi ànd ko ci diggi géew bi ji woo ñu ko cons na courant amu fi courant amu fi woo ñoo cons lamb ji Ahmed Gaba Singh grand combat baa ngi noonu ñoo ngi demee wet waaye mbokk yi saak yi fekkiwul kenn gabaar wàcc na daa bëgg xeex wala lu mu bëgg a def Ahmed Deme Gaba Singh Geba Ahmed dem nee na ma dama duggoon géej waaye génnaat fa duggaat fa li tax ma duggaat fa xam naa ko. Geba nee na su ma ñëwee li ma war a def xam naa ko dinaa ko def. Geba combat am du yomb du Gabbar wàcc na daa bëgg a xeex ak moom waaye na moytu Amet Leen mi ma gis daa mel ni pare na de waaw Gabbar dagaat na lewaatoo bi xool na xool xam na baaxul mu dagaat lewaatoo bi waaye Amet Dem a ngi tekki rek di ko dem Gabbar Singh Ahmed Deme Gabbar wàcc na Gabbar mel ni ku bëgg a dem waaye day yendu leerul mu bàyyiwaat. Ahmed Deme Gabar Singh Gabar daa bëgg a dem waaye yoon bee leeragul ci moom. Gabbar Singh day lewaatoo ba mu neex mu dagg lewaatoo waaye li ma ci xaw a jaaxal mooy lamp stade bi tàkkagul est-ce que bu guddee dinañu aase. Bamba Thiam ndax dafa bëgg ñoom ñaar Bamba Thiam est-ce que lamb bu yàgg bi waaw enragé nañu enragé na leen parce que stade bi lamp yi tàkkul lamp yi fi mu ne nii tàkkul parce que boo xoolee moom laa doon laaj léegi naan lamp yi lan moo tax tàkkul courant sax ci boppam amu fi kon moo tax presse bi war nañ leen a jox cër ndax boo xoolee ñëpp a taal minute kon loolu lu am solo la waaye nag Gabassine fi ne nii dafa mel dañ ñu ko toogal see tàng ndax ci la jëm mu ngi wàcc rek gis nga mu ngay dox mu ngay dox daa bëgg a dóor la bëgg a ku dafa bëgg a dem te leeragul ko. Ahmed Deme Sane na taxawal. loolay dox bi ngay dox di jëm ci man bëgguma ngay ñëw taxawal. jootu naa na combat bu yàgg lañ fi nar a. waaw loolu fi nar a def nag ndax gabasin ku ne xam na ne ay combat am du gaaw. Hmm. te fi ne nii nag boo xoolee lamp yi amu fi kon gabar dañ lay ñaan nga daal di gaaw. bu gaawal de waaw bëri ko ci ci fulla fayda ak ci jom. Ahmed Deme a kan la jël Ahmed Deme ñoom na. jàppante nañu. baax na. Amet Dem jàpp na de Amet Dem jàpp na Amet Gabaara ngay dóor Gabaara ngay dóor Gabaar dóor na kaaw na oh Amet Dem dóor na Gabaar sing mu daanu Amet Dem lii nga andi woon doomu ma wax la. sant yàlla. bi ma fiy jógee li ma waxoon. alhamdulilah rabi alamin. mais da ko dóor wala da nga ko alamin. da nga alamin. bi ma fiy jógee. lii laa waxoon bi ma fii mujjee. laa waxoon sant yàlla alhamdulilahi rabi alamin lan nga waxoon. alhamdulilahi rabi alamin bi ma fii jóge dama julli. Mhm. sant yàlla. mais dañoo gis ngeen kenn amul doole yàlla rek moo am doole. dëgg la wuy am yàlla la may. waaw ku ñàkk yàlla la xañ. kon nag sant naa yàlla baax di sant. waaw na bar na bar. ñëwal ci bëri bi da ngeen gis ko mu an di daan. saa dama kaa dóor. Mhm. liggéey rek moo am solo. bii passé dama liggéey. am na ñu doon wax amul doole am na ñu doon wax Ahmed liggéeyul. fi yàlla rek moo fi ne. am na loo xamante ne mënuñu ñu ko bañ a laaj. comme yow yaa doon bëre grand combat bi coupure bi nga xamante am na nañ arbitre di leen teg pression sax pour ngeen bëre c'est la troisième fois muy am ci stade bi lu mel nii lan nga ciy wax bay ba bi tey mënoon ngeen koo ñàkk par avertissement lan nga wax ci lu mel noonu. parce que bi ñu duggee la arbitre lampa yi tàkkul lii c'est pas normal ñun ñoo moom stade bi nan respecté mbëri yaa may dégg bi day fay xaalis tal kon donc nan respecté di taal lamp di taal baaful yi baafuli nan koy taal seen en musique warut a dugg see stade bi mais nag maa ngi sant ñëpp di sant waa Thiaré supporter sama waa Igiri aw ma seen fay. ñi des xam nañ seen bopp nee naa leen. dana wàpp rek saa waay dana liggéey rek moo solo maa